laqil lisaani waxlulan minhu luqad waj'alhu daakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam falhiha bilmustafa xayra sham asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ji waa at bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen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 mottali li nu tàmbali woon bi weer wi teroo mooy weeru zil di weeru tabaski ci spécial tabaski euh, kon tey incha allahu euh, ñu mottalee ko li ñu waxoon démb ne Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar tënkal nañu ko te jëlee ko ci alquran ci ragal yàlla lenn ci li ragal yàlla di jariñ Ah, kon tey la bis bi nga xam ne ni ci la ñuy mm, tabaski yàlla nañ ko teewee ay at yu bare bare di ci jaarale sunu kàddu di baalu àq ñëpp di leen baal te ñaan suñu borom tabaaraka taala boole ñu jéggal te ñu fekkee ko at yu at yu bare bare te suñu borom di ñu nangul kon ak jaamu yàlla la nañ ko waxee woon démb ci jaamu yàlla yëpp lu ci àndul ak ragal yàlla suñu borom du ko nangu ndax amul lu ko amu ci soxla kon sëriñ Tuubaa nag sunu yaakaar dafa waxoon ne ragal yàlla na ko def ndax lum néew néew rek am na juróom-ñaar yoo xam ne ni ragal yàlla dana ko jariñ da cee génne yooyu rek waaye yim tuddul moo ëpp mu ne ah ragal yàlla day tax sunu borom di la yankeewal ay xam-xam yu nekkul ci téere yi foo fekk ku ragal yàlla day bëri xam-xam xam-xam boo xam ne ni xam-xamu baatin lay doon boo xam suñu borom tabaraka wa taala moo koy xamal ngir ragal gi ragal yàlla mu ne moo tax suñu borom tabaraka wa taala wax ci alquran ne wattaqullaha wa yuallimukumullah na ngeen ragal yàlla ndax yàlla xamal leen xam-xam eh, leen seen moroom bindeef mënta xamal mu ne ñaareel ba ragal yàlla itam day tax suñu borom tabaraka wa taala yërëm leen day waral yërëm rek suñ borom tabaraka wa taala ndax suñu borom moo ne wattaqullaha laallakum turhamun na ngeen ragal yàlla ndax yàlla yërëm leen mu ne ñetteel ba ragal yàlla dafa am solo ndax day tax suñu borom tabaaraka taala di ànd ak yéen fu ngeen mën a nekk suñu borom eh, ànd ak yéen di leen gunge ci lépp mu ndax suñu borom moo ne waalamu anna allaha ma al muttaqin inna allaha ma allasina taqaw wallasina hum muxsinun na ngeen xam ne kat yàlla way ragal yàlla yi la àndal suñu borom mi ngi ànd ak ñi ko ragal ak ñii def lu rafet mu ne ñeenteel ba ragal yàlla day tax suñu borom musal leen ndax suñu borom moo ne wa najjayna allazina amanu waaye nag wa kaanu yattaqun danañ musal gaa yi nga xam ne gëm nañ ba noppi làmboo ak ragal yàlla mu ne juróomeel ba ragal yàlla day tax a gën say morom ndax amut ngëneel lu ñuy nat fenn lu dul ci ragal yàlla moo tax suñ borom ne inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd ci yenn mooy ki gën a ragal yàlla rek mu ne ragal yàlla itam day tax suñu borom di leen wërsëgal wërsëg yoo xam du ngeen xam fu mu jógee di leen defal it maxrajan ci lu lu ngeen dugg lu nekk moo tax mu ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu la yaxtasib mu dellu waxaat ne ragal yàlla waaw loolu mooy juróom-benneel juróom-benneel bi ma wax léegi mu ne juróom-ñaareel nag ragal yàlla day tax a tabbi àjjana te tabbi àjjana moom moom la jullit ñëpp bëgg moom la jullit ñëpp itam di ñaan mu ne suñu borom moo wax ci alxuraan ne wattaqullaha laallakum tuflixuun tilkal jannatu allati nuurisu min ibadina man kaana taqiya kon mbokk yi yàlla na suñu borom defal ak ragal yàlla te defal ko jullit ñëpp ndax mooy jariñe àdduna mooy jariñe àllaaxira yii nag ku ko doon topp ci alquran da ngay wax fii ba suba te du jeex ragal yàlla kon lu ama am njariñ la nañu ragal yàlla di ko wattandiku ndax ñu am xéewaluk àdduna ak xéewaluk àllaaxira di baaloo ak mbokki jullit yëpp ak mbokki di leen baal yàlla na seen borom boole jégal di sant mbokki jullit ak mbokki taalibe yi tamit ci jàppale gi ñuy jàppale waa daara Hikmatul mi ñoo ngi jot ci mboolem message yi ak addiye yi nga xam ne nii mbokk yi ñoo ngi koy dugal te jëmul fenn furul ci daara ji di soñaat ñëpp itam ci daara ji nga xam ne nii itam dañ koo taxawal ci ndigalul sëriñ bi ngir di ci liggéeyal sëriñ Tuubaa di ci liggéeyal lislaam di ci liggéeyal tamit jullit ñi gone yaa ngi fi macha allah tàmbali nañ jàng mi ba am na ci wax dëgg yàlla ñoo xam ne ni ñoo ngi sori lool te ñoo ngi am ci ñoom yaakaar ngeen ñaanal ñu ba ku fi andi njabootam ku nekk yaakaar jëm ku fi andi mu bañ a tas ku fi ñëw ku nekk ñoo ngi ñaan yéen tamit ngeen ñaan lañu mu mokkal alquran waaye tamit mu jëlee fi al ilmu naafi wal amalu saalih wal adabul mardi yi ndax loolu rek mooy sunu jubluwaay ci njaboot gi di woowaa tamit bonne volonté yi nga xam ne nii fu ñu dégg lu baax def seen lu baax lépp luñ mën ci jàpp ci daara ji ñu jàppale ci ndax bëgg nañ mu doon ay daara yi daara yi daara daara ba daj réew mi ba génn sax réew mi te mu doon njëriñul lislaam doon njëriñul jullit ñi lépp lu ci waay def it ah, na ci sa xel dal jëmut fenn furu ci liggéey bi quoi kon nag ah ku ci bëgg a def dara wala nga bëgg ci xam dara wala nga bëgg cee doon dara nga woote ci 77 633 77 56